génnuk xuseynu ca mag xuseynu bi mu jotee bataaxelu ibnu xaqil muslim ibnu xaqil ci mu di ko wax ni ko ñëwal te gannaaw bi li xew lépp xew muy rey gi ñu rey muslim ibnu xaqil te xuseynu yegu ci dara mi ngi dogu rekk ci dem mu génne màkka ci bisu ak tarbiya muy bisu juróom-ñetteel ci bisu juróom-ñett ci weeru tabaski bi jëkk ñuy rey muslim ibnu xaqil ci benn bis rek ndax muslim ñu ngi ko rey ci bisu arafa nit ñi bi ñu yëgee génn ko xoseynu ñu am ci tiitaange lool wattandiku loo ko it génn gi boroom xalaat yépp te am ci moo cofeel lañu ko jox xalaat mooy bu mu génn dem iraq lañu ko digal mooy mu toog ci màkka ñu fàttali ko li xewoon diggante baayam ak waa iraq la xewoon diggante xasan magam ak waa iraq wax nañ ibnu abbas radiallahu anhu dafa wax ni fa ñëw ci xuseyn ni ko nit ñi dañoo siiwal ni dangaa bëgg a dem iraq damaa bëgg nga leeral ma loo bëgg mu ni ko waaw dogu naa ci demte ci benn ci ñaari bis yi insha allah ibnu abbas ni ko damaa bëgg nga leeral ma bu fekkee ñoom bi ñu lay woo dañoo rey seen kilifa ba noppi dañoo rey kilifa ga ba dàq seen noonu ba noppi ba takk seen mbir door laa woo bu demee noonu de mën ngaa dem waaye nag bu fekkee seen kilifaa nga fa di dund sax fa nat leen ay jaraafam di lijjanti réew yi bu ñu la woo it dañu laa woo ci fitna akub xeex bul dem man de ragal naa lool nit ñoo ñee ñu ñu la woo ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu xëcc leen ci seen bopp ba def leen sax ñu doon ñoo xam ni ñooy xeex ak yow ña la woon la ak cofeel rek ba wutul ñooy walbatikuwaat dal ci sa kaw ci pexe yi kilifa yooyu Ousseynou ni ko daal dinaa def listixaar xool ba xam lu may gis Ibnu Abbas génn ci ëllëg sa mu ñëwaat beneen yoon ni ko sama doomu baay man de jéem na ma jéem jéem jéem muñ waaye mënuma amuñ man de tiit naa ci yow lool dem gi nga bëgg dem waa Iraq ay warkat lañu bul waru ci ñoom te ngaa toog ci dëkk bii ba waa Iraq dàq seeni noon nga dem fa dàq si noonu nga dem fa bu fekkee mën a ñàkk génn te nga dem yaman yaman ay sange nga fa ay xure nga fa sa baay am na fa ay taalibe nga daru di bind bataaxit nit ñi di yabal ñi ngay yabal ñuy woote yaakaar naa boo defee loolu de li nga bëgg danga ko am te coono yu bari mën na ci bañ am Ousseynou ni ko yow sama doomu baay xam naa ni day danga may laabiire xam naa ni it ko am ci man ak ñeewante ak jofel nga waaye nag dama doggu ci dem ba noppi mu ne ko bu fekkee mënoo ñàkk dem rikkiwaay bu yóbbaale sa njaboot gi bul yóbbaale xale yi ak jigéen ndax ma de ragal naa ñu rey la nañu reyoon Ousmane ay soxnaam ak i doomam di jàkkaarloog yow di jàkkaarloog moom di ko xool giñ naa ci yàlla ne bu ma xamoon ne bu ma siiwee ci sa kawar gii ñu ni tim fii nit ñi duñ ma xeeb xeeb la te su ma ko defee nga topp ma ci li may wax danaa ko def ni ko waaye nag xam naa ni nan ngaa seral rek xolo bi ibnu zubayr ci bàyyee gi nga koy bàyyee xijaas dem sa yoon daal di génn bi mu waxee moom loolu moom ibnu abbas dafa daal di gën dajeeg ibnu zubayr ni ko ibnu zubayr sa xol sedd na ndax Ousseynou ngi nii di génn jëm iraq bàyyi la ak xijaas lii mooy li ko ibnu abbas wax ibnu omar radiallahu anhu mi ngi woon màkka bi mu déggee ni xuseyn mi ngi waaj a dem iraq mu dab ko wax nañ ne dab na ko ci doxub ñetti fan ne ko ana foo jëm mu ne ko iraq waaw mi ngi yor ay bataaxel yu bari ni ko seeni téere seeni bataaxel seeni leetara ngi nii seenu jaayante ngi nii mu ne ko bul dem waaye Ousseynou bañ rek gàntal Ibnu Omar ne ko déglu ma waxta ma nettali la ab xadis Jibril ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa tànn loo ko diggante àddina ak alaaxira yonente bi tànn alaaxira bëggul àdduna te yow di aw daggit nga ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam giñ naa ne giñ naa ci yàlla ne kenn na ci yéen du méngoo xilaafa gi mukk abadan yàlla li tax mu dox seen diggante ak moom mooy bëggal leen lu ko gën waaye mu bañ a deltu gannaaw ibnu umar daal di lëngoog moom daal di jooy ne ko dénk naa la yàlla dénk naa la yàlla dénk naa la yàlla waaye nag néew bu ñuy dénk yàlla rek la naa la yàlla néew bu ñuy dénk yàlla rek ab néew bu ñuy ba mu déggee dem ak dafa wax ni Xuseynu dafa gaawe dafa yàkkamti ab diggam daal ni su ma ko jotoon duma ko bàyyi muy génn mukk te daf ma not ndax ci banu Hashim la mbir mii tàmbalee woon te ci lay jeexe saa bu ngeen gisee ku bokk ci banu Hashim ku moomati ku yëlefati rek na xam ni àdduna jeex na abu said alxudri radiallahu anhu ni xoseenu yaa aba abdillah man di damay leen laa biir te ku am ci yow ak ñeewante la dama dégg ñu ne waa Kuufa dañ laa bind leetar di la woo bul dem dégg naa sa baay di wax ca Kuufa di wax ñii de yokkat naa leen bañ naa leen ñoom itam yokkat nañu ma bañ nañu ma ñii de ak matale du bàyyi ko ci ñoom matale couleur bàyyi ko ci ñoom mukk ñii de ku leen gañe it gañe nga cër ba yées ci cër yi wallahi amuñ yéene amuñ ak dogu ci dara mun ñoo muñ it jate noonu la ko abu said al xudri waxe moom itam tere ko dem gi jaabir ibnu abdullah tere na ko dem gi said ibnu musayab wax na ni useynu de bu génn génnutoon moo gën abu waaqid al laysi noonu Abubakar ibnu Abdurahman ibnu Haris ibnu Hisham ñëw ci Xuseen ni ko yow de gis nga eh, waa Iraq li ñu defoon sa baay defoon ko sa mag Xasan waaw nga bëgg a dem ci ñoom waa Iraq jaami àdduna lañu maa ngi lay fàttali yàlla ci sa jëmm ci sa bopp mu ne ko yal na yàlla fay nag lu yàlla àtte loolee day am Abubakar ni ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Abdullah ibnu Jaafar bind ko ab bataaxel di ko wattandikuloo waa Iraq Ousseynou tontu ko ni ko dama gént ak gis yonent bi sallallahu alayhi wa mu digal ma mbir moo xam ni duma ko wax kenn te du dama caa taxaw ba Umar ibnu Amr ibnu Saïd ibnu al ki nekkoon ca ka doonoon naa it ca Makka ak Madina moom itam bind ko ne ko dama dégg ñun dangaa bëgg a dem Iraq maa ngi lay muslul yàlla ci ak ñaayoo Ousseynou tontu ko ne bu fekkee sa lettre bi euh, njekk rek nga ci jublu ak jokk ma yàlla na aw yiw ci àdduna ak alaaxira waaye nag ngaayoo di kenn kuy woote jëm ci yàlla di def lu baax doon ab jullit bu leer di ngaayoo moom amut kenn kuy woote jëm ci yàlla di def lu baax doon ab jullit buy ngaayoo amut noonu xoseynu yónnee madina ngir ñëwoyof ci bani abdul muttalib nañ ñëw ñu ñëw di fukki nit ak juróom-ñeent ak fukki góor ak juróom-ñeent ak i gone jigéen yoo xam ni ci ay ñenn ñi ay mbokkam lañu ñenn ñi ay doom yu jigéen lañ ñenn ñi ay soxnaam wax nañu ni ba ñu génnee Muhammad ibnul Xanafiya dab na leen rakkam doomi Seydina yi la wax Xuseynu ni ko man gisuma génn génn du sama xalaat génn gi ñu génn dem iraq man ànduma ci waaye xuseynu dakkorut ak moom ba muhammad ibnul xanafiya dafa tëye ak njabootam yebalu ca kenn mu ànd ak xuseyn ba xuseyn sax am na lu mu ko ci jàppaloon ni ko yow kon daal say doom ñoo la gënal sa doom daal nga tànn say doom nga tànn ci ñu ànd ak man ci bërëb bërëb bi mu war a reye yow say doom say doom say doom la ma nga ne mu ne ko déedéet ajowuma ñu di la rey di leen rey ak donte sax ñu rey la mu ëpp fi ñun lim mën a doon waaye nag ñu boole leen leen di leen rey amul nu benn njëriñ mun la Hussein génne jëm Iraq ànd ak njabootam ànd ak lu mat juróom benn fukki nit ci waa Koofa ñu ànd ak moom loolu mu ngi euh, doon euh, bisu tarwiya juróom ñetteel weeru zil ci atum juróom benn fukk ci gàddaay Ousseynou dafa daal wër kaaba gi dox Safa Marwa daal wàññi kawaram daal di yeewiku ci umraam daal jublu iraq nag booba nit ñoom ñu ngi jublu jëm minan moom mu jëm iraq jël nañ ci ibnu Samaan mu wax ni Ousseynou bu mu génnee Màkka ndawi Amr ibnu Saïd mi doon kilifag ak Makka daf ko dogale dañ ko dogale booba Yaxya ibnu Saïd mooy seen moo leen jiite ñu ni ko léegi wëlbatikul ana foo jëm mu làng mu bañ daldi wéy bañ xëccoo ba dóorante ay yar ak yat daldi terewu terewu gu dëgër gu diis Xuseyn wi daldi wéy Eh, mu woo ko ni ko yow Ousseynou ndax doo ragal yàlla ndax dangay génn ci mbooloo mi ndax da ngay tasaare xeetu yonente bi ginnaaw bu ñu dajaloo waaye Ousseynou ah, dafa daal di tawil aaya bi rek ni ko lii amali walakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malun maag sama jëf yéen sama jëf dañ ngeen ci li ma nekk waaye ma itam dañ naa nag ci li ngeen nekk wax nañu ni Ousseynou daje nag mu laaj ko Euh, léegi nit nit ñi ci luñ nekk faras dàq ni ko xooli nit ñi de yow la ñu àndal waaye seeni jaasi nag ba nii uma yàlla àndal Ousseynou daal di jàll waaye xamul dara yëgul dara ci li xew ci rey gi ñu rey muslim ibnu xaqil muy def nag ndox yi arab yi ndox moom ci romb rek mbooloo mépp topp ko euh, ci yoon wi la dajee bataaxel bi koy leeral ni ko rey nañu muslim ibnu xaqil bi mbooloom xuseen yi moom yi déggee ni rey nañu muslim ibnu xaqil banu xaqil dañu daal di jóg daal ni du duñu dellu te jotuñu suñu deret mbaa boog la suñu mbokk mos ñu mos ko xuseen yi noonu la wéyee ba dem ci béréb bu ñu wax xaajar foofu la taxaw ni leen kat sunu parti bi sunu chia yi kat war na ñunu ku ci bëgg a dëpp ci yéen mën ngaa dëpp te dara du ko ci fekk dara du la ci fekk nee na mbooloo mi daal di tasaaroo di rek càmmoñ mboolem ñoo ñu ko toppoon jàpp ni dafa jëm si ci e, lu takku lu leer nañ ñi dañoo daal di dëpp bañ ña àndoon ak moom jóge màkk képp ñoo fa des bi fajar jotee mu digal ay xale ñu root ci ndox mi te baril ko noonu la Xuseynu jàlle ba àgg ci birab bu ñuy wax siraaf siraaf googu fa la daje ak euh, armo yi ibnu Ziyad ñi junni junni ñuy faris junni ñu war junni ñu war ñu ànd ak ku ñu wax xar ibnu yazid kooku moo doonoon kilifa police yi Ubaydullah ibnu Ziyad mu doon muxaddima arme bi nga xamante ni moom mooy mooy jiitu si ci arme bi nga xam ni moom la ibnu Ziyad yebal ñu ñëw ba jàkkaarloo ko Xuseynu ci waxtu tisbaar Xuseynu ñu mu àndal ngi kaalaw ràngoo seeni jaasi Xuseynu digal ñi mu àndal ni leen ñu root ci ndox mi wëgg seeni fas wëggaale fas yi ñee nga xam ni ñooy seeni noon yiñ jàkkaarlool bi waxtu tisbaar jotee Xuseynu digal benn waaye mu noddu euh, bi mu noddee mu génn mu ngi euh, sol benn ñëgg làmbaayu taraxlaayu dafa làmbaayu waaye di sol ñaari dàll ñëw xutba nit ñi boole leen ñoom ñëpp ay àndandoom ak i noonam mu xubba leen daal di leen di balu àq ci ñëw gii mu ñëw xamal leen yëpp ni leen waa koo fa kat ñoo ma bind bataaxel ni amuñu ñoo bind ni amuñu ilimaan amuñu kilifa euh, ni ma soo ñëwee danañ jaayante ak yow xeex ànd ak yow noonu ñu taxawal julli bi Xuseyn wax Xar ibnu Yazid ni ko ndax dangay julli yaag sa mbooloo xar ni ko déedéet jullil nun ñu julli topp ci sa ginnaaw Useynu moo jiite ñaari mbooloo yépp ba mu noppee dugg ci ab xaymaam ba waxtu takkusaan jot mu génn julli takkusaan xar ni ko waaw man de dama xamul bataaxal yi ngay wax moom yoo mu doon ak ñan ñoo ko bind Useynu génnee jalu téere teg ko ci kanamam mu tasaare ko xool jàng ci ab lim daal di ne ko ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne ñoo la bind bataaxel yi ñu daal li ñu digal mooy du ñu dajeek yow ñu bañ a tàggoo yow te dañ laay yóbbu ba ca kanamu Ubaydullah ibnu Ziyad Useynu ni ko nag al mawtu adna min zalik li nga wax nag dee ko gën a yomb dee moo gën a yomb nga dama yóbbu ci kanamu ibnu Ziyad Useynu wax ñu mu àndal ñu war leen ñu war jigéen ñu war ba mu bëggee dëpp ñu dox digganteem ak dem Huseyn wax xar ne ko sakkilat ko umuk ni ko ana loo bëgg léegi xar ni ko man kenn digal ma xeex yow waaye dañ maa digal ni su ma dajee yow bu ma tàggu yow te du dama laa yóbbu koofa ci ibnu Ziyaad bu fekkee bañ nga nag kon dangay jël weneen woo xam ni du la yóbbu kóofa te du la delloo Madina nag si wenn yoon wooy jar la ko toppee Xuseynu euh, jël wetu càmmoñ xaru di dox làng ak moom di ko wax ni ko Ousseynou maa ngi lay fàttali yàlla ci sa bopp ndax maa ngi lay waatal ni boo rey boo xeexee dañ la rey de Ousseynou ni ko dee képp ci nga may tiital adi wax bayit wi muy sa am bay wa ma bil mawti aarun ala al fata ida ma nawa xaqan wa jahada musliman ko dinaa wéy ndax dee moom du gàcce ci nit bu fekkee dëgg la yéene te jihaad doon ab jullit wax nañu ci guddi gi euh, dafa gëmmeentu ba bopp bi lang mu yeewu moom Xuseyn daal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun walhamdulilahi rabbil alamin daal di wax damaa gis benn gawar bu war aw fas di wax ni nit ñi de ñi ngi dox waaye dee gi mi ngi dox jëm si ci ñoom ma xam ne sunuy bakkan lañu ñuy tàgge lañu ñuy tàgge noonu ca ëllëg sa ca suba sa la Omar ibnu Saad ibnu Abi ñëw ànd ak ñeenti junni gawar ñeenti junni nit ci ndigalul ibnu Ziyaad dañuy wax ne dañ ko waajalaloon ab arme mu jëmoon ak daylam bi mbiram Xuseynu dikkee la ko ibnu Ziyaad jox ndigal ci mu dem ca Xuseynu bu noppee ci ay ci moom nag doo ko dem ak daylam waaye wax nañ ni euh, Omar ibnu Saad sàkku na mu jéggal ko waaye mu ibnu Ziyad bañ ni ko ba la neexee daal ma jéggal la te folli la ci fii fépp dina falu dara léegi mu ngi ko may ma diisoo sama mbokk waaye ku mu diisoo la kooka ni ko folliku ci pale àdduna yëpp de moo gën ci yow ngay taq ci dereti Xuseyn folliku ci pale àdduna yëpp moo gën ci yow ngay taq ci dereti Xuseyn ku mu diisoo rek mu tere ko Ibnu Saad xëpp ko tëkku ko ci fàll bi ak fàll ko ak ray ko ba tax mu ñun wuta bañ a dem mu daldi dem moom Omar ibnu Saad ibnu moom ci ab béréb daal di ndaw ci moom laaj ko ni lu la fi andi Ousseynou ni ko waa Kóofa ñoo ma bind bataaxal ni ma ñëwal waaye bu fekkee bañ nañu ma ma dellu Makka bàyyi leen Omar ibn Saad ba mu déggee wax jooju dafa wax ni ndax yàlla musal ma ci xareeg moom daal di bindee ibnu Ziyaad loolu yi wax ko ko ibnu Ziyaad ni ko doxal digganteem ak ndox mi ñu ñu doxewoon digganteem ak Usmaan mañ reyoon te tooñ ko mu mel ni kon foofu feeñ na fi rek delloosiwaat euh, mbokk Usmaan bi ak xew-xew ya ca amoon mel na ni yeesalaat na ko foofu yi ndax dañu ko doxal diggante mag ndox mi nañu doxee woon diggante osmaan ak ndox ma te nga wax Useynu mu jaayante moom ñi ànd ak moom ñu jaayanteeg Yazid ibnu Muawiya bu ñu ko defee ñu xool li ñuy xool wax nañu ne Useynu euh, sàkku na ci Umar ibnu Saad moomu nekkoon na ko bàyyi waaye dafa mel ni loolu ci xar la ko jëkkoon a sàkku ni ko mu may ko mu jàll ci Yasid mbaa mu may ko mu dellu Hijaas mbaa mu may ko mu dem ci benn post ci poste yi xeex fa ak yéefar yi ba lu yàlla dogal ci moom waaye xarum Yasid nangu wutoon d'accord loolu nangu wutoon d'accord dara ci loolu waaye nag bënn bataaxel Ubaydullah ibn Ziyad wax ko ko ni ko Xuseyn na ne benn ñett yi eh, lu ngeen ci d'accord rek mu ànd ci yéen muy mën a dellu Hijaas mbaa mu dem ca Yazid ba teg loxoom ci loxoom mbaa boobu ñu bàyyi ko mu dem ci poste yi benn poste ci poste yi e, jihaad ba ba yàlla dogal li muy dogal ci moom waaye bi ñu waxee bi bataaxee bi ñëwee ci moom Abdallah ibn Ziyaad dañu wax ne dafa d'accord ni ko loolu d'accord na ci waaye Simru ibnu Dil Jawshan dal di jóg ni ko déedéet doo ci d'accord mukk te dafa wàcc si ci sa àtte moom ñu mu àndal daal di koy xambaat ni ko dégg naa ñu ne Xuseynu ak Ibnu Saad dañuy toog ci diggante ñaari ñaari ñaari armo yi di waxtaan guddi gépp Ibnu Saad ni ko wax nga dëgg euh, daal di yabal Shimr ibnu Dil seen moom ni ko demal bu fekkee Xuseynu ak ñoom ànd nangu ñu wàcc si sama àtte baax na buñ ko nanguwut waxal Omar Ibnu Saad ni ko na xeex ak ñoom bu yeexamtalu nag ray ko moom ci jëmm boppam te doon buur bi yow te doon kilifa gi ray ko te jiite nit ña léegi daal di bind Umar ibnu Saad xupp ko ci yeexamtalu gi mu yeexamtalu ci xeex ak Xuseyn bi Simru ibnu Dil Jawshan ñëwee indi bataaxel bi bataaxelu Ubaydullah ibnu Ziyaad Umar ni ko yal na yàlla soril sa kër yow de wóor na ma ni li ma ko waxoon yow mii yaa dox diggante mag nangu gi muy benn ci ñett yooyu seenu sàkk sëñ bi ko wax dañ may wax rek looy def ndax da ngay xeex ak ñoom wala da may bàyyi ak ñoom Omar ni ko déedéet bàyyil man maa koy féetewoo daal di koy teg ci. ñi dox ak tànk ci waa arme bi ñi ciy dox ak seen tànk daldi buur jëm ca xoseynu ci ngoonu alxames tolloog juróom-ñeenti fan ci weeru muharram omar ibnu saad daldi woote ñu war ginnaaw buñ julee takkusaan jëm ci xoseynu xoseynu mi ngi toogoon ci kanamu xayma ba eh, lëkkaayu lam la rango jasim euh, gën sax ba bopp bi xaw a liis waaye mu dégg mbokk mbokkam kenn ci jigéen ñi mu àndaloon dégg coow li daal di ñëw yee ko Ousseynou dellu si daal di wax ne dama gënt gis yonent bi léegi mu wax ma ni ma euh, yéen a ngi waaj a laxas jëm si ci noonu Abbas ibn Ali daal di ñëw ni ko ni ko ni ko gaañ ñëw de Xuseyn ni ko demal ci ñoom laaj leen lan lañ bëgg dama Abbas ibn Ali dem ci ñoom laaj leen lan leen lan ngeen bëgg ñu ne ko ndigal dañu dikkal ci ni benn ngeen wàcc si ci sunu at ci atte bi wala ñu xeex ak mun leen taxaw leen foofu xaar ma waxtaan ceeg eh, Abu Abdillah mooy Xuseyn daal delluwaat ci Xuseyn dellusiwaat ni leen nee ngeen may ko guddi gii ba mu xool mu muy def ba xam lu mu ci def Omar ibn Saad wax Chamr ibn Dal Jawsan ne ko loo wax Chamr ne ko yaay kilifa gi li nga ci xalaat mooy xalaat bi loo ci xalaat rek baax na wax nañu ni guddi googu Ousseynou dafa dënk ak njabootam xutba leen ci njëlbeen gi sant yàlla tàgg ko julli ci yonante bi ni leen nag ku ci bëgg dëpp mën ngaa dëpp ci guddi gii digal naa la nga dëpp ndax nit ñi man mii lañ soxla waaye yéen soxla wuñ leen suñu ma jotee rek euh, am nañ liñ bëggoon kon ku bëgg ñibbi rek mën ngaa ñibbi am nga ndigal waaye mbokk yeeg doom bàyyi yépp maase na ko mukk yàlla buñ des sa gannaaw yàlla buñ yàlla woon lu ñu naqari ci yow Ousseynou fanaan moo ñum àndal guddi gépp di julli di jéggalu yàlla di ñaan yàlla di toroxlu euh, fas yi armo bi di leen wër di leen garde bi bët setee ba Omar ibnu Saad di julli suba muy bisu aljumaa euh, di bisu ashura fukki fan ci weeru Tamxarit ci la taxaw nag ngir xeex ak xoseynu euh, xoseynu it julli moom ñu àndal ñu julli suba dal di Omar ibnu Saad waajal ab armam xoseynu it waaj moom ñu àndal ñu daal di jàkkaarloo ci béréb boobu xoseynu euh, wax nañu ni bi ñu jàkkaarloo dal na ci ab xaymaam sangu laal gët daal di diw ñenn nag ci ñim àndaloon it daal di def na ni mu def am nañ waaw yéen li ngeen def ci waxtu wi lu mu doon ka ñuy wax Xuseyn ka ñuy wax euh, Yazid ibnu Xuseyn ni leen nit ñi day ba may doon ko nekk ba may doon màggat ñëpp xam nañ ni mosuma bëgg ay caaxaan waaye lii ñu def dañ ko def ngir bëgg ci lii ñuy bëgg a dem bëgg ci mujj gi ñu bëgg wujj wujj suñu borom ndax suñu diggante ko xolobal ayn dara newu fi lu dul dajeeg ñee ñu rey ma Xuseyn daal di war ci aw fasam daldi di nit ñi daldi jël ab kaamil daldi koy teg ci kanam daal di woote moom Xuseyn ni yéen nit ñi déglu leen laa bi rek kii ma leen di wax yéen nit ñi bu ngeen nangoo laabire gii da ngeen ci taxe lool da doon ñu taxe ñu am sax te it du ngeen am ci mën a waaye bu ngeen ko nanguwut nag ma ngeen dajale seeni mbir ak seeni pexe yëpp te fàq te bañ maa xaar ndax man kat inna waliya allahu alladi nasala alkitaaba wa huwa yatawalla saalih yàlla mooy sama kilifa mooy féete woowooy baax mun ngeen yéen nit ñi seetaat leen seen bopp réglewaat leen seen bopp ndax yàlla na ci yéen ngeen di rey ku mel ni man man nii maay doomi doomu yonent bi seenub yonent te tey jii ci kaw suuf benn doomu yonent néew benn sëtu doomu doomu yonent ku dul man ñu leen yonent bi sama maam bi waxoon na ne waxoon na ma maag sama mbokk Xasan ni ñaar ñii ñooy sangi waxambaane aljanna ndax du ngeen ragal yàlla ndax lii war dox seen seen diggante tuur sama dret wax leen ma yéen nit ñi ndax dama leen reyal nit ku ngeen bëgg a fayu ndax dama leen lekkal seen alal ngeen di ko ngeen di ma ko topp ndax dama jam kenn ci yéen ngeen di ma topp jam jam boobee ñun ñëpp ñu ni cal kenn mënta wax mu leen bu ngeen ma bañee ci ngeen ma bàyyi ma dellu fa ma jóge woon Qays ibnul As'ad As'as ni ko lu la tee mën a wàcc ci àtteb sa doomu bàyyi yi ñoom duñ la def lu bon te doo gis ñoom lu dul lu baax mu ni ko mahaasallah yàlla tere inni ustu bi rabbi wa rabbikum min na yàlla musal ci bépp aji réer joo xam ne gëmut ëllëg ñu daal jëm si ci moom waaye foofu yi bi mu waxee xutba bi ba noppi yaram yi dafa daw ba am na ñoo xam ni dañoo dal di fàqe ca mbooloo mi lu mat fanweeri gawar yoo xam ni xarum ni yeesis moom yi ci la bokk fàqe nañ ca mbooloo ñu topp si Hussein ñëw bale ko xàq ci loolu xew euh, xar ni ko it su ma xamoon ni yéen ji lañ am kon ma àndoon ak yow yóbbu la woon ci yesit kon dinaa woon nangu li nga ma waxoon waaye Hussein nangul ko ngànt loolu ku ne xam ne ñaari armo yi tolloowuñu ci ab lim tolloowuñu ci dara waaye teewut suba gi lañ tàmbali di xeex ba tisbar lépp xoseen euh, ak ñi mu àndal ñoo di gañe ngir ayu tar ngir kàttanu euh, seen seenu ay ngeen ngir ngir ngir seenu njàmbaare ak nag euh, dañoo doon deewoo ngir ne e, yàlla rekk fi nekk ak seen jaasi yi nag ñu xaru ci kaw ñooñu rek waa as e, waa waa ibnu siyaat yónnee di sàkkuwaat ay ndolleen ngir ne lii dafa doyut ndax ñii dañu xaw a jàmbare ba ëpp ibnu siyaat dolli leen lu ma juróomi téeméer nit e, ci tisbaar Huseyn wax ni nañu nu may ñu julli waaye kenn ci waa Koofa ni mukk déedéet loolu du mën nekk ba xuseynu dafa julli jullik ragal ak ñi mu àndal ginnaaw bi ñu xeex xeex bu tar ba mbooloo mi nag jëkki-jëkki dajaloo bari lool ba agsi ci xuseynu bi ñi mu àndal gisee ni nar nañu ko rey ñoom ñëpp ñu jëkkante ñëw ci kanamam euh, ngir jëkk koo dee balaa déggee agsi ci moom ñoom ñëpp ñu rey leen ci kanamam ba mel ne xuseynu képp des fa bi mu fa desee nag ku ñëw ba agsi rek dëppaat kenn bëgg koo rey ndax ragal cër bi mu am ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu wër ko benn waay bi ñuy wax Shimr ibn bil jaw di leen soññ naa leen rey leen ko rey leen ko yàlla leen seen ndey yaradal yaradal rey leen ko ko waaw ana lu tere ma ko rey yow mi Shimr daal di ànd ak mbooloo ñëw ñu war ko rey leen ko rey ba benn waay jekk-jekki rek caw ko jaasi ci mbagum di jar mi ku ñu wax Sinaan ibnu Anas ñëw jam ko ab xeej mu daldi daanu radiallahu anhu ku ñu wax xawli ibnu yazid daldi wàcc euh, daldi koy rendi dagg bopp bi noonu lañu jëlee bopp xuseyni yóbbu ko ci abdullah ibnu xubaydullah ibnu zeer jël nañ ci jaafar ibnu muhammad mu wax ni xuseyni bi ñu ko reyee fekk nañ ci moom fanweeri jam-jam ak ñett jam-jam xeej fekk nañ ci moom fanweeri tawi jaasi ak ñeent euh, wax nañu ni Simru bnu Sil Jawsan moom àggoon na ci bëgg a rey Xuseynu mu ndaw Seynul Abidin boobu mi ngi tawat ba ku ñuy wax Xumayd Muslim dox digganteem ak loolu yi rey nañu ci ñi àndoon ak Xuseynu juróom-ñaar fukki bakkan ak ñaar ñi àndoon ak Xumar ibnu Saïd ñu rey ci juróom-ñett fukk ak juróom bayti rey nañ ci lu mat fukki nit ak juróom ñett jaafar ak xuseynu ak abbas ak muhammad ak osman ak abu bakar ñu ñëpp doomi ali ibnu abi taalib lañ xuseynu reyal nañ ko ali mu mag ak abdullah xasan rey nañ ci ay doom abdullahi ak qaasim ak abu bakar abdullahi ibnu jaafar rey nañ ci moom reyal nañ ko awnu ak muhammad xaqiil eh, rey nañ ci ay doomam jaafar ak abdullahi ak abdurahman ak muslim mi ñu reyoon jëkk lii di agsi ak abdullah doomi muslim ibnu xaqir ak muhammad ibnu abi abi said ibnu xaqir ñëpp ci ahlul bayt lañ bokk imaam ahmad radiallahu anhu wax na ni bi ñu indee bopp xuseynu ci ubaydullah ibnu abi ibnu ibnu ziyad dafa yor ab bant di ko kocceel ci bakkan bi di wax ci ab taaram bu mu am Buxaari yi wax ni dafa fab ab bant di ko kocceel ci bakkan bi di wax ni musuma gis taar bu mel nii jële nañ ci Anas ibnu Malik radiallahu anhu mu wax ni bi obay ñu indee bopp xuseynu ci obaydullah ibnu Ziyad dafa jël ab bant di ko kocceel ci ñaari bëñi kaw yi di wax ni jàppoon naa ni ku taaru la anas nee na ma ne ko dana la wax lu la naqari tey de ndax lii ngay def de gis naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy foon fii ngay teg sa bant bi nee na bi mu waxee loolu mu daal di zenew moom ibnu siyaat ibnu siyaat bi mu wootee ni nañ woo mbooloo mépp daje mu xamal leen ni leen yàlla defal nañu ak fatxu ndax rey nañ Xuseyn mi ñëwoon ngir tasaare mbooloo mi tàqale seen i baat léegi ñu ngi ciy sant yàlla ku ñu wax Abdullah ibnu Afif dafa jóg ni ko tuskar ñal na yow ibnu Ziyad di di ngeen di rey doomu yonente yi di wax waxi siddiqoon ibnu Ziyad dafa jaar di joxe ndigal ca saa sa ñu rey ko euh, sëlëb ko mu joxe ndigal ñu jël bopp Xuseynu yónnee ko Yasid ibnu Muawiya mu ànd ak bopp yi yi nga xam ni moom lañ ko reyandoon wax nañ ne ba bopp ya àggee eh, Yasid dafa dal di eh, bët yi dafa tàqem mu daal di wax ni bëggoon naa nag ngeen topp ma ci lu ngeen di rey Xuseyn noonu ña ca des ci njaboot ga ak gone ya noonu la leen boolee ak noonu la leen Xumar ibnu Saad boolee ak ku leen garde ñu yégal leen waral leen ñu jëm ca Yazid bi ñu robee Xuseynu seen dañu daal di yuuxuwaat yuuxu yu tar jooy jooy yu tar Zeynabu mi doon mbokkum Xuseynu di jooy di wax ne yaa muhammada yaa muhammada salla alayka allah wa maliku sama hada xuseynu bil ara xuseynu ngi nii ci ndeneer gi muzammarun bid dima muqattau al aada xuseynu ngi nii ci ndeneer gi ñu muure ko deret dagg ci ay ciram yaa muhammada wa banatuka sabaya ni ko see dooma gi nii jigéen ñu jàpp leen noonu la jooye ba jooyloo bépp bépp noonu noonu lañ leen eh, jële ci koofa yóbbu leen ci eh, noonu lañ leen jëlee ci karbala yóbbu leen ci ibnu ziyaad daal di waajal jigéen ñi ak gone yi yóbbu leen ci yeesu Muawiya bi bopp yi dugg see ak jigéen ñi ak xale yi ci yes yi yes yi di woo kilifa yi saam yëpp ñu toog mu wax ali yi mu ndaw Zeynul Abidin ni ko yow ali yu sa baay dafa dog mbokk gi doxal sama diggante moom réere sama ak xëccoog man sama nguur loolu tax yàlla def ko lii mu ko def ali yu ko ak kooku ne ko ma asaaba min musibatin fi l ardi wala fi fi samaai fi l ardi wala fi anfusikum illa fi kitab Yasid wax doomam jooju ne ko muy di Xaalid ne ko tontu ko Xaalid xamut lu mu koy tontu Yasid ne ko ne ko ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir lan jëg ci musiba rek yéen a ko fàggul seen bopp ginnaaw bi nag mu daal di leen di waddu yónni Nu'man ibnu Basi Nu'man ibnu Bashir mu ànd ak ñoom yóbbu leen màddina wax nañu ni ba ñu àggee màddina ñëpp dañoo daldi di yooxu jigéen ñi bani Haasim yëpp yooxu waaye e, ka fa nekkaloon Yasid dafa daal wax rek ni yuux yi moom dañ koo faye yooxu yañ doon yooxul Ousmane rek yooxu ya jigéen Ousmane doon yooxu rek moom la waa Bani Haasim fayaat na di yooxu mel ni kon ak euh, kujje gi doxoon ci kaw ca maam ya daal dafa wéy rek di feeñ ci diggante boobu wax nañu ni Yazid bi ñu indee bopp Xuseyn dafa wax ne xam ngeen lan moo indi Xuseyn lan moo yóbbee Xuseynu lii ñu ne ko déedéet mun leen dafa wax ni dafa jàpp ni bàyyam moo gën sama baay ndeyam moo gën sama ndey yonente bi maamam moo gën sama maam kon moom moo ma gën kon moo ma gën a yaay ci mbir mi daa di wax di mu wax ne bàyyam moo gën sama baay loolu moom sama baay bàyyam dem ci nekkoon di xëccoo xam ngeen ko yàlla faral kam jox atti ba wax ji mu wax ni ndeyam moo gën sama ndey gin naa ne Fatima bintu rasulillahi moo gën sama ndey wax gi mu wax ni maamam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën sama maam giñ naa ne amul benn jullit buy gëm yàlla gëm bis penc jàpp ni yonente bi kenn yem naa moom daal di waaye ak dégg la amut ndax yàlla moo wax ci alxuraan ni qul illahumma maalikal mulki tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u gi tama ko jox ku ko neex di ko jëlee ci ku ko neex Xuseyn kon ñu ko rey ci bisu àjjuma ci bisu Ashura E, ci weeru muharram ci atum juróom benn fukk ak benn ci li gën a wér ci béréb ñuy wax karbalaa ci suufu Iraq mu am juróom fukki at ak juróom ñett e, mbaa ko jege bàmmeelu Xuseyn nag e, liñ siiwal mooy mu ngi ci fañ wax mashhadu ali ci dexu Karbala wax nañu ni mashhad boobu ñu ngi ko tabax ci kaw bàmmeelu Xuseyn Ibnu Jarir nag wax na ni béréb ba nga xamante ni fa ko rey woon dafa ràpp ba kenn xamu ca dara bopp bi it li gën a siiw mooy Ibnu Ziyad daf ko yónnee Saam ci Yazid Ibnu Muawiya waaye ginnaaw bi wóoti nañ ci fan lañu denc bopp ba Muhammad Ibnu Saad wax na ni Yazid dafa yónnee bopp ba ca naayibam ji nekkul Madina mooy Amr Ibnu Saïd mu denc ko ca Baqiya ca wetu yaayam Fatima radiyallahu anhuma kon loolu mooy xisab xuseyn wax nañu ne xuseynu aj na ñaar fukki at ak juróom dox ko ci tànkam daana julli ci guddi gi téeméeri rakka kon loolu mooy xisab xuseynu la ca des incha allah dinañ seet la ca sës la ca sës ci ay wax ak coow ñu jàllale ko gàttal ko foofu ba beneen ne euh, li ci des nag mooy yow mu asura euh, te mooy bis bii nga xam ni euh, ci lañu rey Xuseynu li ci am ci ay ngëneel ndax bisub sant lañ ko war a jàppe wala bisub njàqare ndax ci saxeexu Buxaari ak Muslim dañu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee maddina dafa fekk yahood yi ñuy woor bisu Ashura mu laaj leen lu tax ñu di ko woor ñu ni ko bis bii day bés bi nga xam ni ci la yàlla musale yonent yàlla Muusaa ci Firawna eh, ñu di ko woor ngir sant ko mu ni leen noo leen gën a yaay ci Muusaa di ko woor jox ndigal jullit yi ñu di ko woor ñoom itam ñu jàppee ko bésub cant kon yonente bi seen bisu cant boobu yi muy bisu cant Moussa ci solidarité ak ñoom dox ndigal jullit yi it ñu ànd ko ak ñoom kon loolu moo tax lu sunna ñoom bisu mbégte la ñu ko jàppe chia yi nag dañ ko jàppe ñoom bisu njàqare bisu naqar bisu jooy ngir li ñu ci rey surtout yonente bi boobu Sëriñ Tuubaa wax na ni waa asbatu ashyaa fiihi tunqalu an sayyidil anaami fal tastamilu am na ay mbir ci tuxale ci yonante bi na ngeen koy jëfandikoo muy koor sawmun salaatun silatun wa xoslu muy koor bëgg nañ ko ci woor bëgg nañ ko ci julli bëgg nañ ko ci bokk bëgg nañ ko ci sangu bëgg nañ ko ci joxe ku ci sarxe bëgg nañ ko ci lewi ay ween bëgg nañ ko ci tusngadu bëgg nañ ko ci seeti ku wopp ak ziyaar ji boroom xam-xam ak raay bopp jërim ak di jàng suratul ixlaas junni yoon ak di ci yaatalal sag njaboot euh, wax nañu ni loolu doon fukki mbir ak ñaar sangu ci wax nañu ni dafay tere tawat tos nga du ci mën na day dàq ngumba yaatal ci sag njaboot it dafay dolli wërsëg ci ndigalul yàlla kon euh, Ashura ango insha allahu bu ñu ko suñu maye la ca sës ci ay xew-xew mooy ñi nga xam ne dañoo taxawoon tuddee seen bopp ak tawaaboon euh, wut kilifa bi tuddee ko amir tawaabiin ñu jógoon di topp dereti xoseynu euh, danañ ko waajal beneen waxtaan ba la ca aju lépp ñu leeral ko ndeem soob na borom bi di wax ni euh, kon mbir maa ngoog mbir mu maa doon nag li ci ëpp solo mooy ñu am luñ ca dégg liñ ci jëkk dégg ci xew-xew bu bi ak euh, woote bi nga xamante ni waa Kuufa woo nañu ko Xuseynu ba mu ñëw ba xew-xew bi am lépp war nañ cee jàngi dara euh, surtout jamono bii ñu toll nii ak jafe-jafe yu bari ak woote yu bari ak woote xalaat yi ñu delluwaat ci ginnaaw rek ngir xam ni àdduna nii la masalan naka jekk te du jóg di mel nii ñu xam it ni ñu woo Xuseynu bañ ko woo seen intérêt bopp personnel moo tax ñu di ko woo Ibnu Ziyaad ba mu demee ba xam ni ñii bëgg njariñ képp tax ñuy woo Xuseynu di ko jàppale mu jëkkanteeg Xuseynu defal leen njariñ ba tax ñu wal bëtiku euh, dal ci kaw Xuseynu loolu ba tey luy dox la ci jamono bi ñu di ko dund ñuy ñaan yàlla mu defal na ak dégg ak topp dëgg la bëggoon naa ko jàngat njàng di gudd sax waaye dama koy bàyyi ci loxo yi nit ñi koy déglu ñu jàngatal ko seen bopp di ñaan yàlla mu defal ñu ak euh, defal ñu ak euh, dégg defal ñu ak euh, waaru ci xibaar yu mel nii sunu sang boobu it mooy Xuseyn ibnu Ali di sëtu yonente bi sallallahu alayhi wa sunu borom yokk ay leeram defal ko te sax defal na ko ko ndax martaba shahid dafa doon muy dee ci xare dafa doon loo xamante ni yombut ndax yonente bi eh, alquran bi mu tuddee ni min nabiina wa siddiqina wa shuhada yi da ci rek eh, shahid day martaba bu kawe te suñ boroom defal na ko ko eh, ña nga xam ne ñoom la yàlla jaar la ci ñoom rey googu xam ne dafa am lu namu ci ñoom yal na yàlla def jullit yi ñu gën a tegu ci asiraatal mustaqim bi nga xam ne moo moom la leen yonente bi bàyyee woon euh, waaye nag këccoo àdduna ak daraja nag tasaaroo na lool ci jamono bi ñu toll te xëccoo alal ak daraja lépp lu mas a bon ci àdduna rekk euh, xëccoo alal ak daraja moo ko fi andi yal na nu yàlla defal ñu amuk dégg yal na nu yàlla defal ñu doon jullit yu gëm ni ëllëg moo gën tey yal na nu yàlla defal ñu doon ñoo xam ni kenn duñu mën a jënd ci alal kenn duñu mën a jënd ci daraja jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.